tànk jàng amul UCAD jàng du am ci biir réew mi loole di mot d'ordre bi nga xamante ne yile étudiants yu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru yëkkati nañ ko ñoom nag luñ bëgg rekk mooy ñu ubbiwaat campus bi. bañul ñun bañuñu ko ci ñun université Dakar kenn du invalider année comme leer te du ñu nangu pendant neuf mois ñu tëj suñu université bi mot d'ordre bi joxe nañ ko. bu fekkente ne cours amul université Cheikh Anta Diop bu Dakar cours du am fenn ci Sénégal. donte ne sax daal di woon nañ teg loxo yenn si ñoom fii ci Ndakaaru ba foofee ca Diourbel terewul mot d'ordre bi respecté nañ ko te nag ñoo ngi woo yeneen université yi ñu jàpp ci combat bi. di woo nag ñi nga xamante ñoom ñoo yeneen université yi ñu ñëw jàppale université bu Cheikh Anta Diop de Dakar parce que université bi kat. mu mos na fii la mas a taxaw ngir jàppal ke bépp étudiant bu am problème ñu leen di interpeller à ce ñoom tamit ñu ñëw di interpeller toutes les amicales locales ñu ñëw jàpp ci combat parce que combat combat bi c'est un combat d'avenir combat bi combat étudiant yi la combat avenir u Sénégal yi la ñoo ngi woo itam élèves yi nag si établissement scolaire yi ñu jàppale leen dama ciy profité rek ngir ñaax suñu rakk yi nga xam ni ñoo nekk ci collège ak ci yi nekk ñu fi benn yoon ngir tere leen ñu jàng ngir tere leen ñu def li nga xamante ni seen droit la dañu bëgg rek ñu xam situation bi nga xam ni moom lañ nekkee jamono ji nga xam ni sax mën naa nekk seen situation suba dañoo bëgg ñu comprendre ñu ñu ñëw jàppale ñu ci li nga xam ni ñu ngi koy xeex ñu ngi ciy woo ay gouvernement scolaire yi nga xam ni ñoo nekk ci CEM yi. moo ngi exiger. ñu bàyyi ñi étudiants yi nga xamante ni arrêté woon nañ leen ni ki démb ñu jàpp ne que loolee buñ ko deful dinañ paralyser système éducatif réew mi.